ay ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu foo mu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb rek ñu ngi lay nuyu gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum bu ngeen gisee fii ñu taxaw nag ngeen xam ne ñu ngi ci tele bi écran bi nag bu ñu fi taxawee xel day dem ci jàngatu Père Birahim tey ñu fas yéene indi jàngat bu yaatu doxoon ci diggante combat Modou Anta ak Diène Kayra fële ci arène nationale euh, Père Birahim maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi. wax ma noo gisee ci kombaa bi. a jërëjëf may auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Mm. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mm-hmm. di wax subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim. Mhm. borom waaw kon maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo wasaare yëpp. Mhm. Eh, di leen ñaanal jàmm xéewal ak sutura ak teraanga ak yokkute. Mhm. ak jàmm yàlla bu ñu nangu maa ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal sama bopp. Eh, di ko ñaanal ñi ma bokk liggéey bi yëpp. di commencé ci Bachir Adama Djili. Eh, ba Ousin Kaagu ñëpp ak jigéen ñëpp. ñoo ma bokk liggéey bi daal. ak kilifa gi xam ne moo jiite site bi. dëgg la waaw man xëy na miinanteeguñu. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla maa ngi koy jokk jokk. Mm. maa ngi koy jox nuyoo daal. Mhm. waaw léegi nag tey ñëw nañu ci war a waxtaan wi. Mhm. Eh, maa ngi déglu ji li. ñu mhm. jàngat combat yi nga xam ne am na fii passé. parce que ñun loolu mooy suñu combat bu passé ñu waxtaan ci. wax ci suñu xalaat teewul ku ci am xalaat boo xam ne war nga ci moom ci yokk tamit. ak nañ ko daan waxee am combat boo tamit neexoon na la bëgg nga ñu analyser la ko tamit. soo ko yónnee ji li wala rek soo ko yónnee. dinañ la ko indil ñu toog wax ci suñu ñu ñun tamit ñu yokk maa ngi nuyu ñëpp di waaw di gërëm xam naa ne Xaadim euh, Diouf mu ngi seetaan moom it ku bëgg site bi la. waxtaan nañ ci dem mu ngi jot ñu moom. Hmm. di xaaral Ngala. Hmm. Diène moom it ak famille yëpp. ñoom it hmm. ñu xam naa ne ak ñoom. Mbodj ndeysaan Mbooj Sonatel waaw Mbooj Sonatel. Mm. ndeysaan ak gars yooyu yëpp daal. Mm-hmm. ak sama papa ñoom ñu bëgg site bi la. ak sama papa Fallou Diop ak Fallou Diop Fallou ñu mm-hmm. ngi koy waaye xamante man. waaw dëgg la dëgg la xam bi da nga fekk mu la ndeysaan waaye ku man ceebu dijji boobu leen ma sumi nag yéen yóbbee nii <laughs> ceebu dijji boobu. parce que jabaram jëkkëram Fallou Diop ku bëgg ceebu dijji la. dëgg la dëgg la kon nag bisimilah. ayca père ñu ñëw ci combat bi mm-hmm. euh, gis nga xale xale bi di Modou Anta. moo féetee góos Jën Kayre moo féetee càmm Jën Kayre na doomu mbër la mais Modou Anta est-ce que loolu dina jouer ci làmb ji. waaw doomi mbër. Hmm. dañu naan jàngil bëri des na la man waaye day fekk nga mat mbër. dëgg la mat mbër mën a bëri jàng bëri. Hmm. parce que bu ñu nee doom yi ku nekk la sa baay daan def rek du moom nga war a ma doon. Mm-hmm. kon doom yi médecin bi bi bu ja bu jàngul médecine yi tamit. bu bàyyi bu bàyyi bu màggee doon médecin. wallaay wallaay waaw xëy na bu jàngee dina am facilité. Uh-huh. parce que du fekk na bàyyam doon def loolu. mu doon ko xool facilité uh-huh. boobu booy jiin na ko. dëgg la waaye bu fekkee ne jàngu ko tamit day istag dafa am fu mu yem. dëgg la moo tax lu ñu la ne sa bàyyi mbër la woon day fekk nga foyee bëri. bëgg ko mu neex la nga di ko foyee. Mm-hmm. loolu nag moo la cay yokk. Mm-hmm. parce que ñun kenn ku ne am nga doom joo xam ne mat na mbër bëriwul tojul làmb waaw ba xoolan doom yu mbëri yi fi jot a bëri yëpp champion yi fi jot a mag yëpp kenn amu ci ah. ay champion ah. yaa doom yoo xam ne yi tey jii ñu toj nañu làmb ji la waaw kon nag day fekk nag nga do sa bàyyi bëri pare nga bëgg ko tamit daan ko foye hmm. waaw loolu tamit avantage la ci hmm. waaw mais tubaarkàlla ñoom ñoom yëpp gis naa leen seen préparation taxaw waaye ci sama préparation ci ni ma ko gisee ah. euh, kii muy Modou Anta euh, fooy na bëre bàyyam bëriwul xaw ma ko sa bàyyam xam naa ko ca Thiès Abdou Khadir Gueye uh-huh. ñoo foondoo temps Thiès xale lool uh-huh. gëj na ñoo gisee mais xam naa bàyyam uh-huh. ñoo xale la ndoo fa ak ñoom Mama Sow ak dégg nga bari nañu ak ak ñoom ndem si yàlla si galop yëpp ñoo bokkoon pénc mi dëgg la waaw mais xale la boo xam ne bi am na bëre bi bëggoon na ko ñor na ko fooy def na ci ay jaloore itam parce ku daan ay Mamadi Ndiaye dégg nga daan ñoom maam Baye ma Ndione daan daan na fi ay champion dëgg la booy fooyee dara danga koy gën a yokk sa xam-xam. Mhm. waaw parce que gisoon naa ne bëri bi muy bëri baax na waaye bu ko gënee yokk mu gën a baax. dëgg la waaw. Mhm. muy moom kii tamit muy jën kayre Diène mhm. moom dama ko seetaan mu bëri benn jour ma gis ñu léewtoo waa ji samp ko arrêt gos gauche mu fël arrêt de bi daal koy remplacer ne coppee tànk bi dëj ko. ma ne ah waa xale bi kan la ñu ma doomi ci Kaïré la man ah kii de am na ndoxtu. kii de bu gënee góorgóorlu fonk làmb làmb mën na ko may lu bari. Mm-hmm. waaw parce que gis naa ndoxtu bi ni mu amee xeex bi baax na bëri bi baax na. Mm-hmm. léegi nag mais la ci des mooy ñu bañ koo naab téye ko. parce que xale buy door départ buñ ko téyee rek. Mm-hmm. dégg nga la mu waroon a mën dootul feeñ. dëgg la waaye boo ko bàyyeeg sagom rek su daanee nga ne ko daan nga mais da ngaa juum fii nag lii bul ko defeti boo lëggee bu daanoo nga ne ko bul du du téere dara daan te dara daanu la lii moo la daan. soit da ngaa ragal waa ji soit sa condition baaxul wala soit yow sa bopp yàkkamti moo la gën soit wala da xeeb waa ji moo la daan. Mm-hmm. loolu da am ku nekk sa koo xam ne ku xam la am koo xam ne ko mm-hmm. yàlla na ko yàlla àggale carrière mm-hmm. parce que bi mu summi ko kenn xeebu ko ci entraînement bi. condition bi baax na. parce que man bu ma xoolee abdominaux yi tracé comme tablette chocolat. ma xam ne kii liggéey na biir bi. te biir day téye nit. biir ah. waaw jotam biir dafa baax travail ba mel ni tablette chocolat ah. ah kooku lu rëy la ci bëri kon mbër bu am biir moom amoo ci moom yaakaar non am na ñoo xam ne seen morphologie moo leen ko jox hmm. ah, ah seen morphologie seen biir rëy na mais doole la àndal waaye tekkewul ne biir bi rëy ba pare te abdominaux yi dëgërlu ci biir abdominaux hmm. yi da nga koy travail ba mu dëgër këng ci biir hmm. waaw mën naa nga nekk nitu yaram nag ba pare am biir ba pare am doole parce que biir bi toll na dañ daan wax biir waaye dara ku mu ko ci jàppul tëri nga dem sa yoon parce que amoon na kattan biir bi ngi ci. Hmm. même Gris 2 tamit. moom Gris 2 gis nga ko am moom hmm. hmm. yi gis naa ne cuisse yi ñëw na. gis naa tamit moo lay tuwaar kal daal moom daal combat bi liggéey na ko jéen. jéen ah. combat bi liggéey na ko. liggéey na ko ci daal moom ni mu moom pare woon na tey pour taxawee yaakaar ne boo xoolee tànk yi nag ñaar ñii ak ñii nga xam ne kii moo gën a pare kii. Mhm. jéen moo gën a pare ci taxawaay ci sama gis-gis laa wax de. Mhm. moo gën a pare kii taxawaay. Mhm. waaw moo tax bi ma déggee ñu naan moo daan da ko xeeb ma ne moo daan kon xeeb na xal. te boo xeebee xal rek mu lakk sa dànk. mu parce que jéen yoon wi mu jaar. ko xam ne surtout la ëpp la te yaa ko gën a féete ndaw. ba pare te ëpp la doole ëpp la kàddu dàqu laa bëri. nga dañ jox la ko dëgg la ñoom ñaar ñu ngi léetoo. mais Modou Anta pied droit la pied droit teg kii pied gauche la teg comme li ma la waxoon loolu moom du ma ci la waxoon naa ne la. am na ku ci jubu moroomam. waaw waaw parce que euh, toujours pied bi euh, kii teg droit toujours li muy bari waa gauche ñoo ëpp. Hmm. moo tax toujours teg pied bi kuy teg pied droit toujours euh, kuy teg gauche da lay jubu. parce que li ngay entraînement ñu ëpp ñu ngay bëreel. dëgg la gauche la teg moo tax da nga koy tàmm. dëgg la waaw léegi nag ñu ngi léewtoo dem. ay ñu dem. ñu dem ñu ngi léewtoo. ñu ngi léewtoo ñoom ñaar waaw di xoolante ci bët. Ah, di xoolante rek. ku ci nekk di lii ku ne day may sa tax gis nga jéen mm. taxawaay bu taxawaay bu baax la taxaw. moom jéen waaw jéen bu taxawaay mm. ba pare ak gàdd bi gis nga bi. Mm. gàdd bi mais bi mu def baaxul moom. Oh. arrière bi bu dee bu dee arrière da ngay jël tànk bii dem bii door a ñëw. waaye oh. jël bi taxawal ko maanaam jël bi taf ci morom mi door ànd ànd ba ca ginnaaw. Mm-hmm. loolu kenn du ko def ci biir bëri loolu jor bu ko tàmm. Mm-hmm. waaw taxawaay bi baax na nag gis nga tànk yi boo gisee tubaarkàlla vraiment. forme bu baax la indi ah. Mm-hmm. waaw. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ca ñu ngi noonu. parce que boo xoolee ñoom ñaar rek gis sax nga xam ne te yaa en différence ah. waaw ñuy dem. te Diène dafa wàññi ci combat bi poids mais dafa mel ni. boo xoolee ci seen. temps état dafa mel ni jéen moo ëpp. mais fay fa fa poids bi feeñul. waaw wàññi poids feeñul. feeñul uh-huh. ah, xam nga nag moo xam poids bi mu am wala moom loolu ñun duñ ko xam. Hmm. du ñu xam ndax posé wu lii la daan posé ak lii la ñun xamuñ ci lool hmm. waaye boo gisee forme bi rek. ci hmm. forme athlète bu entraîné dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bii moo gën a taxaw bii. ci li gis-gis laa wax. waaw. ayca ñu dem cokkaas na gis nga toujours gis nga bu cokkaasee. buy dellu si tànk bi ci kanam lay dellu taf ci morom. Mhm. loolu xam naa ne bu fekkee baay bi xam na loolu dina ci dellu xal bu fekkee ñiy seetaan tamit xam nañ ne jigéen nañ ko waaw saa yu gëddee tànk bi ci morom lay taf ci morom bi loolu mhm. baaxul. loolu baaxul waaw non loolu baaxul ci bëri loolu moom ñoom ku mel ni Jean Marie ndeysaan. sixième dan la judoka ñooñu ay judoka bu ñu xooloon xam ne dañuy xam ne Père Birahim li mu wax téere la. di mhm. wax dara ci deñ. ayca ñu ngi noonu ñu dem ñu dem. ñu ngi leewaatoo. waaw ah, leewaatoo tàmmante baaraam jàppante. jàppante rek fii nag dafa mel ni jegante rek. cokkaat gis nga gëdd na ko gëdd na ko mu dem. Ah. ba léegi yëpp toujours rek mébante suutante buntu la rek. yëpp ba ah. tey dara amagu fi parce que ku ci nekk yaa ngi yeeru sa morom seet lu mu andi rek. Mm-hmm. waaw bala bëri am rek jàppante day ñëw. Mm-hmm. voilà gis nga. léegi fii delloo kan moo euh. jëli du moo Anta moo jëli. voilà waaw ñu dem. ñu dem ñu dem sëñ Ba. demal ndànk. ñëwal waaw jéen daw na jëli ko. daaw jéen daaw déedéet Modou Anta kan moo jëli Modou Anta moo jëli ko wala jéen a jëli ko jéen moo jëli Modou Anta. jéen moo ko jëli. bàyyil mu dem demal bàyyil mu dem. bàyyil mu dem. waaw bàyyil mu dem fii ree na. moo Modou Anta parce que jéen dafa buggoon ñëw Modou Anta bañ. waaw waaw léegi ña ngay lewaatoo. ñoom daaw daamal ndànk ma dem. waaw daw na jëli ko gis ah, nga. moo daw jël ko. waaw xam nga dafa daw dëmb ko sol. waaw daal téye loxo gis nga da ko dëbb sol. waaw ah. ak ak ak main gauche bi. Hmm. ba pare téye loxo bi. mais père li ma jaaxal. waaw sañ sëñ Bass téel foofu delluwaatal tuuti. waaw delloo dellul. waaw dellul fi ko jën téewee. waaw bàyyi bàyyi bàyyi mu daw tuuti. waaw avancé parce que père. dafa am loo ma doon jàngal fii. waaw euh, wan ni ma loxo gis nga fi jéen jàpp ci loxo bi. waaw fii mu téye nii xoolal ñaari baaraam yi ma doon jàngal. keroog fii waaw gis fii naan fii ngay jàpp. fii ngay ci cocc bi. gis nga gis bi mu téye fii rek xam nga xam nga fii lu ko dooleel. Mm-hmm. mooy loxo ba sol fële mais gauche ba mu sol ci poqtaan bi. moo ko mu mën a jàpp. ci waaw parce que gis fii mu téye nii. Ah. su ko neexee bu ne ba day teg ci rein bi rek pousse du agsi fii. Ah. su waa ji bëggoon a forcer bu ko neexee bu ko tegee ci rein pousse waa ji du agsi ba suba Mm-hmm. ba suba mun toog si moo tax gis nga jéen fi mu sol gis nga génne boppam encore fii tam c'est mm-hmm. très bien mm-hmm. kii tam boppam génn fële ñu dem fi mu téye baax na ñu dem waaw parce que gis nga demal ñu dem ñu dem gis nga mu ngi fa téye loxo mu nga téye fa mu téye rek uh-huh. waaw gis nga fa mu téye uh-huh. waaw loxo boobu mu téye xam nga lu ko waral action bu mu gëdd day pousse loxo bi rek mu deñ uh-huh. waaw parce que gis nga moo daan jàppagul. waaw ah. jàppul gis nga loxo ba léegi gis nga fi mu tegu ci paar gi jàppul. Mm-hmm. waaw loxo bële tam xaw ma bële jàpp na wala bi si ginnaaw na le. Ah, bële tamit jàppul daf ko. jàppul kon kon léegi ba léegi ñoom kenn jàppagul sa jàpp sama. kenn jàppagul kii gis nga fi mu téye ci téere yi. Uh-huh. waaw. téere yu dëgër yi itam dama koy tere mbëri. Ah. boo ci tey te gay gu dëgër a dëgër mën na la mën na la tere bëri. bul ci sa adversaire jàppee mën na laa dóor xoolal xam nga mm. fii téel téel. téel noonu xam nga fii moo daan te sol. waaw waaye kii da ko crochet. jéen da ko crochet mbagg bi. dëgg la bi mu crochet mbagg bi nag loxo bële lay jéem a fexe mu jàpp. Mhm. waaw wala loxo bii bu ko jàppee baax na mais loxo bii jàpp ko wóorul bële mu jàpp nag mooy gën a nañ dem. ay ca ñu dem. waaw gis nga mu ngay wut ngemb la. mu ngay wut ngemb. xam nga moo moo daal léegi jàpp na. waaw waaw fi mu jàpp baax na. fi mu jàpp jàpp na. Mhm. waaye ba tey gis nga xol xam nga voilà mais gis nga téel nag téel nag fii nag wala fii mhm. gis nga xool loxo bii mu téye nii ci ngemb li baax na waaye xam nga lu tax du man a liggéey. dada bi bi mu ko sol nii. jënd ko sol ci biir da ko sol. Mm-hmm. du def benn mm-hmm. waaw loxo bii nag bu dañoon bunt bi ubbiku na. dëgg la waaw day am fu mu jaar mais fii ni mm-hmm. mënu ko jaar fenn parce que fii ne da ko téye ngemb li ba mu dëgër mais kii dafa sol loxo bi da ko sol ci bokkataan bi. xam nga du mën dara. léegi nag benn ñaareel ba taxawaay bii mu taxawaay tànk yi làng yi ni baaxul. taxaayoo jéen bi moo gën. Ah, jiital benn tànk. Ah, delloo benn tànk bi nga mën ne ci kanam ba ci ne ba nga mën a mu ne ca mhm. gis nga kii nag ñaar tànk yooyu dafa làng ba pare téye na taxaw ne tekk fii ne léegi pour jéen mu jéem ci ñu dem. ayca ñu dem sëñ Bassirou ñu dem ñu dem Bas. ayca gis ngeen. waaw. ñu ngi doon jàppante. et puis encore fii ma la la. gis nga ah. bu doon sol bi. waaw teel ma woon la ba tey am na lu fi feeñ. gis nga fii ne tey ji gis nga fi mu sol nii. xool tànku bi doo téye fii dangay bàyyi ngemb li su li wax ci suuf. moom Modou Anta. waaw loolu nag téq waaw Modou Anta. day hmm. bàyyi ngemb li su li wax ci suuf fii. gis nga mais loxo bii mu sol nii parce que ci dafa sol rek mais jàppul. Hmm. waaye nag sol bi baax na. parce que hmm. sol bi frein la moo ko téye. moo ko téye comprendre nga li may wax baax. léegi nag loxo bii amoon na su li wax ci suuf. mais day fekk taxawaay walla taxawaay bi baax na fii fii ne léegi dër na tànku droite bi ñëw na gauche baa ngi ci ginnaaw léegi taxawaay bi baax na. léegi nag fii bu doon téq kat nag loolu nag man sama bëre la. gis bu doon lii nii bàyyi naa fi sulli wax bu yàgg yëg ko. ci biir nga koy teqee. wala ci biir waaw ci biir ngay teq rek loolu nga sulli wax rek yëg ko. Mhm. te loolu nag teq foo nga na deq kat. Ah, ay ca ñu dem mhm. te loolu gisatuma ne xale yi di ko bëri. lay xoolal gis nga. gis nga jéen mu ngi yóotu ngemb. xoolal ni mu fa de xoolal rek te xoolal mhm. tànk bi ni mu ko jegeñee rek xoolal xoolal. xoolal xoolal kay tànk bi ni ko jegeñee rek. tànk jéen bi. waaw tànk bi ni mu ko jegeñee rek mu téye ci ngemb rek du bàyyi sulli wax yu fii voilà xool tànk bi xool ni mu ko mm-hmm. jigéen ñi. jéen sol na ko. waaw sol na ko gis nga sol bi yëpp. gis nga xoolal xoolal xoolal xool li ma lay wax nii mm-hmm. li may gis li ma lay ñuy seetaan. xoolal mm-hmm. bàyyi soq bi suli wax bi gis ko ci sëy bi ci suuf ngay jël. mais loolu nag foo nga doon bërikat boobu. gaaw aussi waaw foo nga doon ak bërikat foo nga doon bërikatu téq rek. waaw. sol na ko fii waaw sol na ko fii daa gis nga ko bi mu ko solee jéem na ko caxabal waaw. xam nga caxabal bi koshikari boobu la moom la suñu kay def koshikara mooy caxabal bi waaw jéem na ko def tànk bi ñëw mais euh, tenté na ko benn yoon mhm. réussir dina ko wutaat ay ca ñu dem ñu dem dóor bi parce que mbër li mu lay daane toujours dina ko jëkk a wët mhm. bu waaw ah, gis nga ko ah, gis nga mbër li mu lay daane mhm. lu olof di wax naan loo gis ci euh, ci ngoro ci say nuyoo woon na ca ci ngoro dañ koo fay ca ngoro ga dañ koo fayul dëgg la kon xam nga leer na hmm. mooy maanaam tey li muy firi ci bëri hmm. mooy ki lay daan benn prix ba mu lay jëkk a daane da koy jéem a def mu raté hmm. wala bu ko defaatee mu raté bu ñettee rek réussir waaye yow miy bëree moom nag yaay bàyyi xel ni kii def na ma bii man nem laa naa ko moytu ah. def na ma ko benn yoon mu raté bu ko ñaaree wala ñettee dana réussir ma ma xañ ko ko nag da ko waroon teel a xañ ko si kër bi parce que caxabal bi def na ko mu rëcc benn yoon mu fexe wiite waat bu tànk ba ñëwut parce que du ñaari tànk yëpp lay caxabale bu fekkoon da koy defee gauche da koy defee droite bu droite bi ratee mu dugal gauche mhm. wala bu dëggalee goos bu gauche bi ratee mu def gauche mu def mhm. droite mhm. kooku moom nag doo xam fu mu koy gé doo xam fu mu lay feeñ comprendre yéen ñi seetaan xam ngeen kii ñëwee gauche wala mu ñëwee droite wala mu ñëwee droite wala ñëwee gauche doo xam ban lay ñëw waaye benn tànk la koy la koy defee mooy droite bi la la koy defee benn yoon raté na benn yoon war warul ñaar boo ci bàyyee xel warul ñaar parce que def na la ko benn yoon mu raté bu ñattee rek mu ñattee day réussir ñu dem. ayca nga xoolal da koy wiitee ba tànk bi ñëw gis nga dóor bi yëpp gis nga dóor na ko tànk bi waaw day day fa ca ci xawal bi lay wut rek. Uh-huh. mais mais fii père. daf ko daf ko yóbbu ci kanam. waaw ba jéen ba ba. ba kër de de Modou Anta dem ci kanam. waaw jéen tànk bi ci ginnaaw téq ko yóbbu ko. ci ginnaaw waaw xam nga loolu du téq téq nee naa la loxoo koy def. pas de tànk waaw tànk. Uh-huh. tànk pànk rek la toujours ma leeral loolu nee naa téq boo déggee téq rek loxoo ko def. Uh-huh. loxo mooy téq. loxo mooy téq. waaye mais tànk du téq tànk day padd. tànk day padd wala mu kolaas. wala mu dugg ca xabal tànk loolu lay liggéey tànk moomul téq déedéet toujours ma wax loolu xam naa da koy fàtte dëgg la Njaay waaw téq ko waaw demal gis nga roof na ca gis nga tànk waaw waaw du dóor tànk bi léegi rek parce que moom bëggul woon tànk bi tànk bii la bëggoon pour mu ñëw mhm. ñu dem ay ca ñu dem que tànk bi ko ju gis nga bi mu ko tànkee nag gis nga roof ko ca xabal bi ah. xam nga tax mu daanu ah. moo daanta bi muy bi muy rasu ah. waru woon laal tànk bi ci kanam waaw parce que booy rasu tànk bi ngay ràcc rek toog say tànk pousse rein bi. Mhm. naa xëy na bu ko seetaanee dina ma dégg. Mhm. dina xam ne euh, euh, mbër bu ma koy wax ak moom. Mhm. waaw du ma ne nag maa fi xam-xam wala dara waaye li may wax ku mën a bëri boo ko déggee di nga xam li may wax. saar yu may tar di koy xam mooy buñ la roofee caxabal. fekk téye nga sa loxo bu tëddaal ba mu dëgër. ñu roof la soppeeku da ngay pousse reyu waa ji. maanaam ndiggu waa ji moom ngay pousse mu génn tànk bi ba ñu ñëw. loolu la ciy génne. waaye boo fabee tànk bi teg ci morom mi dégg nga dootoo am tàngu def nii. ñaataate bu ñu dajee bu la waa ji dàqee dàq bi mooy maanaam da wéeru sa kaw yëg la da ngay daanu mm-hmm. looloo ko daaneel looloo ko daaneel looloo ko bëree bëree la ko génn daane de bëree mm-hmm. bëree la ko génn daane moo tax te gis nga ko mm-hmm. waaw bi tànk bi la tey rek la ko dàq day daanu attention booy la boo xam ne bi ah bëreem tubaarkàlla yàlla na ko yàlla defal ñu carrière ñoom ñëpp tam nag samay doom la ñu maa ngi leen ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm defal leen sutura uh-huh. ah bëreem yi bëri nañu bëree bu rëy nag. bëree bu neex dëgg la. waaw ah, bëree bu neex la ñu bëree. Mm-hmm. waaw moo daante nag ndax xale yi nga xam ne màgg nañu léegi di ko fekk si ci làmb ji. Mm-hmm. na yokk entraînement am yokk xam-xamam lu ko mooy xale yi màgg nañu de. Mm-hmm. ñoom jiyee nag xale yi ne ci kaw di jaadu. jéen tamit li ma koy conseillé mooy euh, mbër la gudd lu mais too am na xam-xam. waaye te xale yaa ngi màgg si. ñi mu war a bëree ci làmb ji bari na te ñoo ñëpp na bàyyi xel. waaw. actuellement nii ñu ngi naan Diène Kaïré yéeg na ci kaw. waaw yéeg na ci kaw ci catégorie ban la bokk actuellement Diène Kaïré su ma la doon tuddal ñetti mbër peer est-ce que Diène kayre mën naa yegg ci catégorie boobu wala yegg ko. muy kan ak kan par su ma la tuddalee Diène kayre ak euh, Yékini Junior. ah waaw combat la bu ko ñemee mën nañoo bëri waaye. Ah. ba tey de combat bu diis la ci moom. waaye nag mën nañoo bëri. Hmm. parce que li olof di wax garab day fekkante ci kaw. Ah, waaw euh, Diène Kaïré. waaw ñoo ñëpp ay mbër la ñoo xam ne seen rakkala mu ngi ñëw seen kaw de. Mm-hmm. waaw ak Kay ak ak mi. waaw Moussa Ndoye moom am na combat. waaw Diène Kay ak euh, Ama Neex. ko bañ. kon na foofu. waaw mu ngi ñëw mu ngi ñëw parce que bu amee kii mu daan nii. Mm-hmm. dégg mu ngi ñëw daal mu ngi ñëw. parce que mm-hmm. ñooñu mag nañ ko tuuti. jiitu ko waaye garab li ma la wax rek garab ci kaw lay fekkante. ñooñu ñëpp mën naa dabante ñoom. waaw parce que dañuy dem ba ñooñu tamit bu ñu nanguwul a bëri moom seen làmb day xat. Modou Anta actuellement waa defaruwaat rek jël revanche ñi mu daanoon mu may leen revanche. jéem a laajaat ci yeneen combat yi defaruwaat nag. defaruwaat. waaw defaruwaat parce que defaruwaat yi mooy entraînement yokk xam-xam yokk entraînement parce que moom it xale la làmb ji mu ngi ci kanamam. am na ci tur ba pare. léegi di wut combat yu baax di bëre di daa jéem a daan nag. waaye xale yi màgg nañu de. Mm-hmm. léegi ku ci nekk ci làmb nekk ci benn niveau bi soo góorgóorlu rek booy romb la. dëgg la Ndiaye. waaw ah, parce que xis naa ci xale yu am avenir yoo xam ne yi bu ñu fonkee làmb bañ a bokk ci gone yi di wor. fexe ba am seen ngërëmal waajur wallaay des na leen dégg. kon mardi bi di ñëw dinañ leen indil grand combat bi. Ah. Lac de Guiers ak euh, Eumeu Sène. Ah, waaw combat boobu di daanaka man su ma sañoon sax ñu bañ cee wax. Mhm. parce bu fekkoon ne bu bëri dafa am comme nii bëri amee nii. Mhm. nga xam ne tey mën ngaa décortiquer que ni kii lee def kii lee la def nangam nangam. Hmm. dégg nga moom ñu mën ci wax suñu xalaat. mais pour le moment pour wax ci sa xalaat. Hmm. tamit da ngay da ngay da ngay da ngay stagné rek. maanaam hmm. da ngay toog benn place parce que bëri bu amul song bëri amu fa. déedéet. bëri bu amul song mënoo xas à la de guerre. tagg euh, euh, Eumeu Sène mënoo xas Eumeu Sène tagg la de guerre. mënoo ci wax kenn dara. parce que gisuma ci bëri bi loo xam ne nii. jaar na tax tey ñu toog man mbokk sama côté. lu may analyser ay wax rek lay doon. parce que gisuma benn jëf. ñu ngi leetoo cokkaas na. ah cokkaas na loolu rek ba tax àtte na dem na am ñetti 15 minutes. waaw ah, xam nga loolu tamit ñetti 15 minutes xam nga ci combat yi. Mm-hmm. kii tamit ama seen wax nopp. Mm-hmm. kenn mënut a tudd mbër di tuddoo ko. Mm-hmm. ku dem ba téye roi des arènes daan Bombardier daan Balla Gaye ñaari yoon. waaw ah, kooku ndaanaan la kooku kenn mënu koo maa ñàkk ba ñu tudd. waaye nag bëri bi ñu bëri bi passé moom ñaanuñu yàlla combat yi passé ñëw mel noonu. Mhm. te yaakaar ñu dina melati noonu parce que mbër yi ci des dinañ ñaax seen bopp. Mhm. loolu laa yaakaar moo tax combat bu daal ma doon ñaan rek yéen tamit ñu. Mhm. tëb ko wax beneen. incha allah rabbi père nangul nañ la ko. waaw mbokk internet yi seetaan wasaare làmb noonu la demee woon bàyyi ji di père may nuyu bu baax Zeus borom Brésil sama xarit bi. Ah. nga xamante ni fan yii téléphone la ma dikk. waaw ma dinaa la jox iPhone bu mucc ayib. waaw kon dina ko wax. Ah. waaw góor la ca wax ja. ndeysaan loolu la góor la ñu ngi koy jàpp ca wax ja rek. loolu la loo xam ne naroo koo def. ah bañ koo wax. waaye loo xam ne li xëy nar nga ko def ah ban ngaa wax waaye daal góor daal ca wax ja comme yéen ne ne la ah dundeel yaakaar rek waaye ki ñu jëfal nii tamit nañ ko sant gërëm ko wasaare kon kay wasaare rek wasaare nañu gërëm wala wasaare wasaare parce que tey jii kat moo nu sañseel dëgg la ndeysaan ñooñu génne fii ci sañse gërëm biram ndaw ndoy sama xarit ak Seynabou jabar ji ndeysaan dégg nga di gërëm ngaa ñëpp ak mm. Bachir euh, Khadim Diouf moom Khadim Diouf sunu waay ak Famara Famara Famara ndeysaan ak kii Assane Kaagu Ngaala Assane Kaagu Jurbel ah, maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu waa Gaam yëpp ndeysaan moom it sunu waay la ku bëgg wasaare la ndeysaan wasaare daal xale yi ko safoo bari na mhm. wax dañ may woolu bari di ma si jéem ak jili saa jili jaan ndeysaan waaw kon nag yàlla yaay yàggal ànd bi rek waaw ah, Modou Commando maa ngi koy nuyu bu ah. baax moom it sama xarit bi eh, Modou Commando moom sama xarit la sama waay la Euh, baax na ñu leen di jaajëfal. bu baax di nuyu itam Bamba Seye. Mhm. ancien basketteur. nekk France di sama jarbaat ay mbokk yu sës lañu. sama dëgg ñaa ko dégg nag Bamba maa ngi di la ziar xam ne tudd sax waaye bul fàtte sama xol ak sama xel yëpp. dëgg la la fàtte parce que tamit ak li ñu bokk moo gën moo gën a fort ay internet yi. dëgg la mooy ak mbokk la ñoo sa yaay ñoo bokk menn maam. kon tey jii ngay sama jarbaat di sama sët loolu léegi lu rëy la te gis naa ma féete. Mhm. waaye maa ngi lay nuyu di nuyu jarga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 cuuna rëy ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg